ngeen jëf ñoo ngi nuyu Pape Thialis nuyu naa la. Euh, ñu gis organisation bi xawoon na métti ndax samedi ak dimanche la naka nga def ba mën a andi fii làmb ji organiser ko fii biir Joal. waaw dañuy jàpp ni Joal dèjà maa ngi lay nuyu si internet yi di nuyu amateur yëpp amateur amateur lutte simple ak amateur lutte avec frappe di nuyu bépp sénégalais di jiital si suñu président de la république ak ñëpp ñoo xam ne tey jii ay citoyen lañu maintenant làmb ji moom. comme ñun dañuy tëgg làmb avec frappe te daj bu ñu am dafa sori donc dañ ñëw pour échauffé wu donc échauffement bi moo tax te ñu ne nañ dem Joal mi nga xam ne dëkku làmb la ñu dem échauffé foofu donc loolu moo ñu indi tey ñu ñëw Joal pour tëgg fi làmb ji. mais dañoo gis promoteur yi dañ daan tijjee lutte avec frappe mais les promoteurs yëpp lutte simple la ñuy tijjee ban secret moo ci nekk. waaw secret bi mooy da nga am équipe boo xam ne pour nga jàngale liggéey bi foo dem si lutte avec simple. boo demee si lu simple si la ñuy mën a jàng boo ñëwee boo ñëwee ay frappe dañuy gën def lu ñu récité donc comme ñun corona bi moo tax dèjà daj yi bëri na parce que ñu tëggul woon taaw pour ñu tëgg dina compliqué donc loolu la ñuy toog croiser les bras on a préféré commencer par lu simple yaakaar nañ incha allah daal chaque weer ñu tëgg lu simple waaw. ñu gis la tey lu simple bi nga ànd ci ki nga xamante ni mooy Tapha Tine ak Boy Niang tension bi béyoon na mais fexe nga ba calmer nga ñaari camp yëpp. loolu naka la sa diggante yow ak ñoom. waaw sama diggante ñoom suñu suñuy partenaire la ñu donc ñoom waruñu amuñu intérêt yàq lamb parce que ñoom si lamb la ñuy dund parce que làmb mooy seen métier ñun aussi ñu leen siy jàppale ci si liggéey ak ñoom donc ñoom amuñu intérêt pour yàq lamb ji donc na metti parce que làmb moo jamee ne fa mu am coow xëccoo dóorante bi mais buñ demee ba si kanam rek dañuy wàccee neer yi calmer leen et que ñu commencé def lu sérieux ñu dem. donc sànq maa ngi doon wax naan combat bi amagul tension parce que maa ngi koy laaj buxaan mais mu ne làmb ji moo démarré gul mais tey li fi am nit ñi dinañ jàpp bàyyi xel ne combat bi combat bu neex lay ne combat bu mag. non làmb ji dafa am tension combat bu mag la combat jànk la donc tey xëy na yeneen combat am na mais combat bi bokk na si combat yoo xam ne mooy combat jànk buñu ñu tax ñu wax jànk Modou Lo Ama Baldé combat jànk la mais bi aussi bokk na si combat jànk yi combat neex la te incha allah xeex la du début à la fin. mais est ce am na date. ah combat bi am na date. waa jàpp nañ le vingt cinq juillet quatre jours après tabaski mais ni ma gisee tension bi nii buñ ko mënee rapproché ci weeru koor bi. moo ñu gënal te loolu. ñu xëcc ko mu gën a jege si mu gën a jege si. sinon lu mu gën a mu gën di métti si organisateur bi ndax coow rek lay indi. Uh-huh. mais à part combat boobu est-ce que Pape foofu la fas yéene yem ak amateur yi wala xelam moo ngi ci leneen. non amateur yi yemuñu ñoom am na yeneen combat yoo xam ne tëgg nañ ko donc dinañ tëgg Diourbel incha allah club avec frappe donc bu stade bi disponible dinañ tëgg Diourbel lutte avec frappe. donc bëgg nañ tëgg ñetti combat parce que loolu la ñu waxtaane suñuy partenaires yi donc bu tëgg ñoom trois combats ak ay combats sans frappe donc incha lépp na dépendre si calendrier ak date yi mais date buñ ko amee rek mu nekk lu baax di leen tëgg incha allah. ah lu bi. fii nga yem yaa ngi waajaat yeneen. non lu simple bi nañu waajal yeneen ñu ngi waajal Fimela ñu ngi waajal Diofior ñu ngi waajal Nangan ñu ngi waajal Palmarin donc cinq régions yooyu ba si Kaolack incha allah di leen ko tëgg. maa ngi lay jaajëfal ndax ambiance bi neex na ñoo ngi toll ci demi final ñoo ko déggandoo noonu. waaw ñu ngi lay ñu bàyyi la nga dem yeggali liggéey. di kontaan si yéen parce que depuis deux jours yéen a ngi nekk ak ñun je pense que wasaare ak Leewtoo benn lañu te incha allah lépp lu suñu programme dina leen ci boole ñu ànd liggéey ko incha allah. incha allah jaajëf jërëjëf.